Muhammad حسب الزدور حسب الغمور

la ilaha مذابي وفي جنابي وسلمابي جوي زكائي هل الغرورة ومن غرورة قبل النصور jalla siyaar sunu kilifa gi ñu jàkkal lool sëriñ bi ñun ay élèves lañu ñii ay étudiants lañu bàyyeekoo cees Xombol Touba Toul ak li ko wër waaye amuñu genn bëgg amuñu genn yaakaar ñu génn suñu Touba at mu jot nag ñuy tànn ay barab dem dundalaat barab bi ren nag suñu joxoñ jëm ci Daaru Minam bi nu bi nu ko xalaatee rek suñuy xol jéngu gim ci yow te sëñ Tubaa tax tax ñu ne bu nu ñëwee fi rek ñu la bët suñu xel du daal moo tax bi ci loolu duggee ñun ñëpp ñu am tawfeex Mbàkke yëgal ni bëgg nañ la yëgal ni sunu xal dal na ci yow doomi sëñ yu tedd ya mennam sëñ Saaliw lu néew ci ñun ñoo ci joñanteeg moom waaye bi mu fi bi noppee gis noppee gis sëñ Bara tey tawatuñ dara yoon yi fi mu ne sunu xel dagar na dal na ci sunu yaakaar dëgër na ci loolu nag li ko sabab mooy sunu jëwriñ sunu digganteeg sëñ Tuubaa loolu képp a tax ragal ñu dara tey ak ëllëg li ko sabab mooy dañuy gëstu ci sëñ bi te saa boo yëgatee kàddu suñuy xel dal loolu dong nga ko sabab yaakaaru suñu dara genn jëf duñu yaakaar bokk gën a bokk ci sëñ Tuubaa te nga ciy suñu jëw yi moo dalal suñu xel Mbàkke sant nañu tànnul ñu dara nag dikk gi amul genn tànneef ndax sax tànn sémbal na suñu tànn moo tax dañoo bàyyi nga tànnal ñu lii mooy kàddu mbooloo bi ñu ngi jéggalu bu baax a baax. lu ñuy bëgg a wut yaa gën lu ñuy dox di mébét yaa mata bëgg mata wut yow ku laam falu di buur yaa gën lu ñuy bëggee kawut yaa gën lu ñuy dox di mébét yaa mata bëgg mata wut yow ku laam falu di buur jóge nga yow faw fi suuf doo del yow mukk fi suuf safe nga doo sappee ka soof ñam nga wudul na bëkk xuur sant nga yow te santulu sopp nga yi te soppulu topp nga it te toppaloo yaaram bi jëf nga jëfi góor yaa mën a sës rëkk ci buur yaa mën a saytu gaayi buur bégal nga buur ak gaayi buur ñëpp ngi bëgg ci yow buur naka ma xam ni duma góor te yër ba xam ni yaa di góor laa ñëw te naa jaajëfe góor saw des a tax nit ñëpp suur man duma lëf duma dara jaaraama gaayi bamba yi bamba di sangub sang yi yéen a di njiital donga yi am ngeen ndam tey ak ëllëg seenub sëriñ tey moo fi gën gannaawam yéen a fi gën moo gën sëriñ si yéen a gën nag seeni kem bég leen a bég lii fàggu sax mayewu ko ite juréy mayewu ko pexe mu réy mayewu ko mbay du mayam nawet bu jag ko yàlla may ci sang yi sang ba gën ci sang yi may la nga gën ci donga yi nga xam ne ak baaxama nag yéen a gënub sëriñ ku yéen a gënub murit ku sëriñ bu nekk xam na ni yéen a gënu nitam bu dog asaka daala ki sarax la dog nga daa boole di jox ab sëriñam te di ko wax sëriñ bi maaka mat a yëg benn sëriñ mësula am ku koy joxuk juram mbiram lu dul sëriñ bi ak ñoñam ku weddi lii mata alak sëriñ bi daala masaam ku koy joxuk juram mbiram di aw ndigal di wut ngërëm di boole guddee ki bëccëg jombu ko ngir def na lu kenn deful te daj na yit lu kenn dajul te dem na yit fa kenn demul ba ñëw ñuy door a jóg ku jóg di daw dootoo ko jot ku waru fas dootoo ko jot ku war saxaare doo ko jot fa mu ne yàlla ko fa teg ku wax lu dul amul moroom te fa mbiram jébbal ko moom aw ndigalam def ko boroom yàq na fen runge teg ak yàlla nu boole nun yërëm faw te may nu ngërëmam fegal noo ak mooy ndigalam teg nu ca kaw tey ak ëllëg lu dul ndigal amul njariñ te kat xamal ni ab sëriñ du bëgg nit bafam njariñ jox ko te toppul ndigalam kem loo defal nag sab sëriñ am lu na toll ci njariñ loo defalul nag sab sëriñ boo ko bëggee doo ko am ab teretal ñàkkul dara waaye ku saytuwul dara du am ca njaayam ma dara lii mata xam te mata gëm ku jóg ba dem fib teretang te yóbbu woo dara du bég teb sëriñay ab teratang du joxe ci neen yëfam boo déggatee yow seen ndaw soo xam ni moo gën sépp ndaw bul daw di jëm ca soo sa ndaw dawala da wutik canam boo bëggatee ci sab sëriñ lenn njariñ jox koy njariñ sëriñ ku koy joxi njariñ mu di la jox ay njariñam ku yor yëfam nga yor sa yëf ba noppi làq nag sa yëf di laaj yëfam yaa gën a dof nde kon sa xel du ko xalam bul jay sa bopp bu ko nax xamal ni kat diisu la jox lu dul li ngay jëf ak wax ak dëgg rek am xoram bul jéem a saxle loo jiwul ngir jéem ma saxle loo jiwul am xel mu gàtt la wutal ak njëg te jëndi ay ngërëm koy mooy te bëgg a àjjana loolee mu bëgg jomb na loo xam ne lii nag jomb na ab dafa koy bëgg ndaxam. dégg ngeen ko de sëriñ Bango noonu rek la demee ko bëgg dégg noonu rek la demee ñoo ko bokk déggandoo.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 xam na sëriñ bi lool. xam na sëriñ bi lool. waaye sëriñ bi boromam rek ko xam. waaye sëriñ bi boromam rek moo ko xam. waaye nag nan sant bu baax rek. waaye nag nan sant bu baax rek. ginnaaw suñu borom bind nañu boole noo moom. ginnaaw suñu borom bind nañu boole ñu ak moom. te góor góorlu rek. te góor góorlu rek. li mu wax lépp li sëñ Baye wax lépp dégg ngeen ko. li sëñ Baye wax lépp dégg ngeen ko. nan góorgóorlu bu baax. nan góorgóorlu bu baax. waaw cant nag. te jiital cant nag. góorgóorlu gi sax. góorgóorlu gi sax. dañ koy def ak cant. dañ koy def ak cant. ndax sëriñ bi lu ne war nañu ci moom. ndax sëriñ bi lu ne war nañu ci moom. te mëna luñ ko dara te mëna luñ ko dara waaye mën nañ koo sant waaye mën nañ koo sant di jéem nag di ko sant di jéem nag di ko sant ci ni mu ko bëggee ci ñun ci ni mu ko bëggee ci ñun dégg ngeen sëñ Baye de dégg ngeen sëñ Baye de noonu rek la noonu rek la nan góorgóorlu bu baax nan góorgóorlu bu baax nuru na ne jax jafe na nuru na ne jafe na waaye lu yomb la waaye lu yomb la bu dëggoo rek bu dëggoo rek jublu sëriñ bi bu dëggoo rek jublu sëriñ bi bu dëggoo rek borom moo lay gàttandu suñu borom moo lay gàttandu sëriñ bi wommatal la boppam sëriñ bi wommatal la boppam ñun ñëpp war a sant sax ñun ñëpp ñoo war a sant sax bépp xol boo xam ne bépp xol boo xam ne bëgg sëriñ Tuubaa ngi ca ngi ca biir xol ba bëgg sëriñ Tuubaa nga ca biir xol ba kooko sant rek ko sant rek moo ko war waaye yéen. waaye yéen. kenn gënu leen a sant. kenn gënu leen a war a sant. jamono. jamono. mësta yomb. mësta yomb. lu baax mësu cee yomb. lu baax mësu cee yomb. nii rek la ma mel. nii rek la ma mel. ca maam Adama. ca maam Adama. ba ci ngën gi mindeef. ba ci ngën gi mindeef. nii rek la mas di mel. rek la mas di mel. kon mucc ci kon mucc ci loolu tawfeex rek loolu taw tawfeex rek moo ko mën a maye borom rek moo koy def ci coobareem sunu borom rek moo koy def ci coobareem waaye yitte mayewu ko waaye yitte mayewu ko comme sunu borom tafa eh, eh, eh, may nanu tawfeex nag comme sunu borom may nanu tawfeex nag ci boppam ci boppam may nu tawfeex sëriñ bi may nu tawfeex ci sëriñ bi kon ñun sant rek ñun sant rek moo nu war. ak góorgóorlu nag lu nag. suñu kem kattan suñu kem kattan. wax naa ci fan yii. wax na ci fan yii. sëriñ bi sëriñ bi. malaayika yebu ko. malaayika yebu ko. ab yonent yebu ko. sëriñ bi jëf leen jëf leen tiwul ak waa suuf. sëriñ bi jëflantewut ak waa suuf. jëf jëflantewul ak ñoom. leen jëflantewut ak ñoom. noppi na ci ñoom. noppi na ci ñoom. jox na leen seen àq ba mat sëkk. jox na leen seen àq ba mat sëkk. ku fi nekk ci kaw suuf ku fi nekk ci kaw suuf. sëriñ bi noppi na ci yow. sëriñ bi noppi na ci yow. jox na la sa jox na la sa àq mat sëkk. ñi mu joteel. ñi mu joteel. mooy ñooñ kaw. mooy ñooy kaw. malaayika ya malaayika ya ak yonent yi ak yonent ya gaa yu baax ya ak gaa yu baax ya ñooñu la joteel ñooñu la joteel ñëw ca kenn nag ñëw ca kenn nag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 Ah. ndax dégg ngeen wax ji. ndax dégg ngeen wax ji. noonu rek la demee noonu rek la demee. mën nañoo yem. mën nañoo yem fii. jërë ngeen jëf tàllal leen. waaw kenn ku ne fas li mu